dali nag jàmm ñu ànd xëy yër yéenekaay yi ñu xëyandoo yéenekaay gi di réew mi quotidien xëy nag ci gétt ngaas gi nga xam ne moo am ci contrat autoroute à péage bi ak ñi nga xamante ni ñu bari ci askan bi di sàkku nguurug Sénégal daal di nag renégocier waat li nga xam ne maanaam mooy contrat yi journal bi di réew mi quotidien mu xëy duñu xamal lan ñu état bu Sénégal nag daat nay teg jéego yu njëkk yi ndax ki nga xam ne mooy ministre maître Omar Youm moom nag daal dinay bind ñi nga xam ne ñooy waa EFAS ci jëm ñu wàññi li nga xam ne maanaam mooy njëgu autour à bi maanaam tarif yi ba pare ñu daal di xoolaat li nga xam ne maanaam mooy koppar yi nga xamante ni mooy tukkee ci autoroute à péage bi maanaam recette yi yéen kaay gii de las mu ñu xamal ñu liggéeykat yi nga xam ne ñoo nekk ci lu jëm ci mbirum pétrole ak gaz jamono ji nag ñoo ngi ci ay jafe-jafe yu métte métti ni ki démb dañu doon janoo ak taskatu xabaar yi waaye nag soo mooy tuulee danañu dem ci li nga xam ne mooy ab grève ndax la nga xam ne moom la ñu nekkee ak la ñuy dund maanaam métti ba ko waaye nat daan na kay passé ñoom daat nañuy wax ci li nga xam ne maanaam moy jaafeeñ-jafeeñ yi nga xamante ni saar daat na kay am ak bor bi nga xamante ni état bu Sénégal daat na koy amee yéen kaay gii di Vox Populi xëy nag ci statut spécial bi nga xam ne ñu bëri ñoom ngi koy lam-laamee ci lu jëm ci mairie bu Ndakaaru journal bi nee na bëri na ñoo xamante ni nag ñoo lëngoo ak Macky Sall maanaam bokkuñu si gis-gis ñoom nag dañoo xotti li nga xam ne maanaam mooy boobale proposition Barthélémy Diaz moom nag la mu xam le ma ngi dànkaafu nguurug Sénégal ci lu jëm ci statut spécial bi nga xam ne maanaam bëgg nañu see def ay loxoor ngir nag teg loxo ci li nga xam ne maanaam mooy mairie bu ndakaaru ginnaaw nag maanaam bi ñu defee seeni dëbbal dëbbal munu ñoo fexe ba daal di koy gañee Barthélémy Dias doomu Sampol Dias bi di xam le ne su dee nag ab statut special rek ñi ko soxla lool te ay fanweeri at ma ngi nii ñu siy daw munuñu see jot mooy ñi nga xamante ni ñooy waa Touba te ñooñe nag maanaam ñoo yeyoo ab statut spécial Barthélémy Dias moo ni waxee ma ngi ci journal bi di Vox Populi quotidien mu ñu xamal ñu Seydina Fall mi nga ne maanaam ma ngi ci kaso bi jamono ji nag génnagul ci mbal ndax banque centrale des états de l' Afrique de l'Ouest maanaam BCEAO ñoom nag danañu porter plainte ki nga xam ne maanaam moom mooy Boughazali journal bi daal di nag dikk moom réew mi quotidien ci nag kàddu yi nga xam ne Macky Sall daal nag yëkkati ci lu jëm ci mbirum góor jigéen keroog bi nga xamante ni ma ngi janoo ak premier ministre bu Canada Jean Fall di ab psychosociologue nee na nag kàddu yi Macky Sall yëkkati daal maanaam ndax nag am na ak lees waxul kàddu ya dafa daal di lëndëm journal bi di source a moom xëy dikk ci commission nationale bi nga xam ne ma ngi ci dialogue national bi journal bi xëy samp ab laaj ne waa léegi nag nañu ko daal di wax nag te dee commission nationale bi est-ce que wëru ñu ko tal ndax ñàkk njëriñ gi nga xamante ni maanaam ñu bari nemmee ko gun nañ ko sa yéen kay gi di Les Échos mu ñu xamal ñu Cheikh Omar Anne mi nga xam ne dañu ko tuumaal ne dafa def ay looxoor ak i njaaxuma ki tojange ak i giraawaali ginnaaw bi mu porté plainte Pape ak nag moo di ñaa jamono ji nag Nafi Ngom Keïta ci boppam la ci bëgg a teg yéenekaay groupe promo consulting bi ak La Tribune ak Vox Populi Sud Quotidien yéenekaay yëpp xëy di wax ci Abdoulaye Wade mi nga xam ne maanaam daat nay génne ab communiqué ni ki démb di sàkku nag fukk ak ñetti étudiants sénégalais yi nga xam ne ñoo nekk ca Chine maanaam Macky Sall andi leen ni mu gën a gaawee ci réew mi Abdoulaye Wade ne ñu waxante dëgg maanaam kër guy tàkk kenn du nekk naan taxawal ma xalaat Momar Thiam di ab docteur directeur en communication waa Sud Quotidien laaj ko na ko Abdoulaye Wade ak réaction bi mu am lan ngeen jàpp ne moo ko waral Momar Thiam docteur bi daa di wax ne Abdoulaye Wade dafa daa di def silence na tekk bi mbir mi xewee xool nag fa askan wa ëppee Abdoulaye Wade dem far foofee journal bi di Sud Quotidien mu ñu xamal lañu en tout cas li am ba des Abdoulaye Wade daal ma ngi dànkaafu Macky Sall le quotidien mu ñu xamal lañu plan Orsec la Abdoulaye Wade andil Macky Sall di ko xalaatal la moom mu ñu xamal lañu Abdoulaye Wade daat nay fi nga xam ne mooy enquête yéen a kaay def ab enquête ci xale yi nga xam ne dañu leen di yàkkataan di di tëddee di leen di saay-saaye ñuy noppi duñu ko wax seeni waajur journal bi nag nee na ñi nga xamante ni ñooy waajur yi ñoom nag bu ñu gisee ab xale lànk jàngi wala dara ñoo war a gëstu xool lana lan moo ko daal di waral Amina Sakho ab juriste la moo waxee nu ni mela journal bii di laas ak réew mi quotidien xëy dikk nag ci lu doy waara doy waara benn xale bu jigéen boo xamante ni nag maanaam ñetti at kese rek dong la am xale boobe nag dañu ko daa di yeewa di koy violé daa di koy rey mbir mi sa Rose Béthio la xewee yéen kay gi mu ñu xamal lañu nag am na benn rakku Modou Lo boo xamante ni nag dañu ko doon àtte ni ki démb ca tribunalu Ndakaaru ndax dañu ko jàpp muy trafiqué li nga xam ne maanaam mooy jëm ci mbirum yàmba te soo moytule ñetti ati kasu danañu ko daal di tëj combat Modou Lo Ama Baldé sunu làmb xëy di ñu xamal lañu combat boobee nag soo moytulee daal maanaam dàq ko report ma ngay daa di xeeña ndax Luc Nicolaï def na lu toll si juróom fukk ak juróom ñetti fan kasu bi ay Ba moom nag la mu xam xamle nee na combat Modou Lo Ama Baldé kenn kese rek dong moo ko mën a lijjanti muy Luc Nicolaï mi nekk ci kaso bi